Salia gis ngeen naa sa waay tey moom maa ngi fii nag maa ngi biir Salia rond-point sali laan nekk Saly Portudal la ñuy wax wala Saly Portudal Saly Portugal Portudal ku ko xam daal après nga wax ma ko maa ngi fii ci rond-point Saly boo jaaree nii biir Saly nga jëm fu gars yi di nooseeg di plané affaire yooyu boo jaaree nii Mbour nga jëm boo jaaree nii Dakar nga jëmaat ah maa ngi nii ci rond-point bi te nag émission kaay yëngu fii la ah, biir sali maa ngi biir Saly damay dugg entrée Mbour bi dem seeti sam benn copain loo ma dugg Saalum waxtaan ak ñoom xool lan la ñuy job foofu ak mondial bi nan na naka na job bi di demee tey nii laay nuyoo maa ngi nuyu sama doom Tima maa lay nuyu sama doom tukulóor bi tóoróore bi gars yi ma koy nuyu mais sama doom la quoi Tima dama laa bëgg équipe nationale Sénégal ñu war a wax ci match bi ah match bi fii Mbour nañ koy waxtaanee waa Mbour Télé Sénégal Matin National Mbaye moo nekk ci ginnaaw maa ci kalam on y va maa ngi nii ah yegg si naa yegg si Sali laa jógee ñëw fii ah Mbour Malicounda laa ñëw ñëw fekk sam benn copain war ko jël waxtaan ak moom tuuti ci affaire football bi baa du nekk affaire fitness affaire football lay nekk xaaral ma ñëw xool boo xam dinaa doy ak général wax la moo fekk ko ci biir salle bi. waaw mais gaañ <laughs> heureusement ko waroon seet fekk naa ko fi gaañ. ziar naa la. mais gaañ si la na surprise de. nga ne tey mbuur laa dugg tey damaa dugg mbuur. waaw dama doon dellu nii dama xoo si gars après dellu nii. nii laa ko waxee ci rond point ma ni peut ma fekk ko peut ma bañ koo fekk maa nii. Ndakaaru. muy fa waxu football tey di waxu fitness waxu waxu la. c'est normal parce que ñu ngi ci coupe du monde bi. Sénégal qualifié quart de finale lan nga may wax bala ngaa nuyu. waaw euh, di nuyu waa Sénégal yëpp di la nuyu d'abord di rafetlu sa teewaay fii ci Mbour tey euh, di kontaan trop ci question yi parce que wax dëgg yàlla actuellement moom euh, suñu waxtaan lépp ci wàllu football war doon Euh, Sénégal qualifié huitième de finale mu nekk mbégte euh, ñu war ko dund nag waaja suñu diggante ak Angleterre euh, gëm-gëm bi ñu amoon mooy maa wuti ndam li nañ ko gën a dëggal maa ngi koo dem gagné Angleterre te gëm naa loolu dañ koy gagné. salle bi ak coupe du monde bi. ba yàqul liggéey bi. non yàqu ci dara nag wax dëgg yàlla ndax wa match yi heure bi muy daw du fekk cours yi commencé. même bu commencé 19h gars yi dañuy ñëw fii seetaan ko bu paree rek attaqué liggéey bi quoi fi lañ koy seetaanee buñ paree ñëpp sol maillot Sénégal ñu feete suñu victoire yi fi jot a jaar waaw. qualification bu neex moom am ay émotion yu bari Pape Bouba Diop génn àdduna Bokande Bruno Metty gars yi dajale leen ko affaire bi nekkoon bu nga xam ne triste dafa triste woon keroog quoi. waaw surtout nag mu doonoon pression sax man ci joueur parce que loolu laa doon wax. que ni tey vraiment lu mën a lu mën a doon gars yi dañu war a gañe ngir delloo njukkal Pape Bouba Diop Pape Bouba Diop mi nga xam ne tey moom mooy moom mooy sénégalais bi ñu njëkk a dugalal bii coupe du monde contre France loolu kenn dootu ko fàtte histoire la donc nag keroog c'était obligatoire gars yi gañe ngir euh, bégalee ko Pape Bouba Diop te xam naa ne keroog fa mu tëdd vraiment xolam sedd na waaw naka saal bi saal bi mu ngi nii rek ak business bi waaw ñun moom gis nga dañuy business ngoon ñu ñëw dóor si waar bëgg a dugg sali xool gars yi mais damay yéeg xool salle bi waxtaan ak waa salle bi après ñu ànd ak ñun nga gunge ñu waaw dañ lay gunge damay yàq amul tey moo fi ñëw tey damay ñëw waxtaan ak waa sali ma waxtaan ak gars yi am waxal xool salle bi nu nu muy doxee nu muy fonctionné ak waa salle bi ma dugg fi fekk fi kan la fekk fi ana ana waa salle bi Omar mooy kan salaamaaleykum maa leen ziar waa salle bi sama waa famille moom man sport laa xam ak fitness affaire yooyu grand jaar naa la. man da nga bëgg affaire doole yooyu non même pas <laughs> non. fii naaj bu tàng bi nii la ngay def salle hmm? waaw bon puisque ñun ñoo gérer salle bi ñu ne la de huit heures à vingt trois heures tous les jours ñoo gérer salle bi bon ku ñëw ñoo gérer accueil bi et tout voilà. bon des fois nag bon day xaw a handicapé tuuti quoi ak coupe du monde bi mais bon ça va quoi ça va bon parce que bon euh, coupe du monde bi bon c'est normal mais après les matchs bon dañuy continuer dañuy liggéey et puis comme d'habitude quoi. confiance match dimanche. waaw bu baax sax. bu jox score yow loo may loo may wax. match bi 2-0. Sénégal pour Sénégal. Ah, bon benn Ismaïla Sarr benn Krépin Diatta waaw. <laughs> kontaan naa ci yow gars xaaral dama xool waat keneen mais loo. kan moo nekkaat si salle bi ma jël ko waxtaan ak moom benn gars yi nii xam naa moom moo nekk ci ak yi bi quoi mais grand ziar na la. ça va alhamdulilah. naka yi. ça va sant bu baax. mooy waaw c'est possible mën na nekk de. naka fii. fii ça sport bi ak coupe du monde bi. waaw sport bi ak coupe du monde bi gars moom ñoo ngi koy dund bu baax fii nii. gars yi ngi koy dund bu baax te ñoo ngi ñaan yàlla tamit senegal gagné Angleterre. incha allah affaire bi gën a neex. am nga na mën confiance bu baax te gëm naa ko gagné incha allah. moo doon jox score match dimanche bi la nga bon match bi score bi mun na nekk 1-0 man 1-0 laa gis quoi 1-0 waaw. waaw heure heure kur yi changé wul. heure yi gars yi di ñëw doon ñëw salle avant mondial bi ñëpp doon daje fi Maricounda changé wul. waaw heure bi nag si mi ngi changé heure bi mi ngi changé gars yi heure match bi des fois salle bi day xaw a wéet mais ñu bari dañuy ñëw su match bi commencé. gars yi am na ñoo xamante ni fii lañu ñëw seetaan ci am na ñoo xamante ni dañu toog seen kër seetaan loolu moo di gënal quoi. kontaan naa waaw merci beaucoup. fii la ñuy continuer ma ànd ak loo dem biir Saly ku ma fa fekk rek waxtaan ak moom waxu football kii Mbaye kañ dem kañ dem Saly ñu dem waxtaan yi wër ci mbedd mi comme ni ñu koy defee chaque jour rek Matar National Télé Sénégal mbay nekk ci ginnaaw sebo ma maa ngi nii entré Saly ah yegg naa Saly. Sali Portugal lañuy wax wala Sali Portugal boo leen ko xamee daal ngeen ma ko xaw ma ci bàll nag maa ngi nii gundu Sali di waaj a dugub waaye fekk naa fi ay borom jakartaana mais xam naa ne gars xamuñu football ay ay waxu bëri lay wax ay waxu bombardier ak affaire yooyu noonu quoi ñun moom waxu football laay wax damay dugg biir Sali xuus ku ma romb rek waxtaan ak moom ci match samedi bi match dimanche damaa xaw a tiit nag pression laa war a am mbay match dimanche la dimanche la ñu nag Angleterre ñu teg ko lu metti incha allah rabbi nañ dugg biir Sali après ñu tasaare ñëwaat Télé Sénégal Matar national Sénégal équipe nationale on y va. ah. xeluma kaasu café du ma fay nag. mën naa fay wala du ma fay. damay fay pet. waaw xeluma café kon ma fay. grand. waaw grand bi. Sénégal dimanche loo si gis. match bi waaw bi da bàyyi xel mu dal rek lañ ciy am bàyyi. waaw dóor ak jàmm ak salaam waaw ñu fekk ko jàmm ak salaam waaw dóor. dóor jàpp ngeen ni Sénégal na gañe waaw liñ ciy ragal. dañoo gëm suñu bopp de waaw. Sénégal bu gën woon boppam du egg si fii baay ñaata équipe nga dóor te boobu ba tey yaa ngi ci bàyyi dañuy dem xel mu dara rek. moo doon joxe score bi yow. score bi non man daal 3 laa jàpp waaw. waaw 3 waaw. 3 waaw. kontaan waaw par xel ma café nga nga croiser bara damay naan café damay fay. xaaral ma fay ba xam Sénégal yi léegi dooy naan café sax ñu naan la ay dangay ñu naan ñu naan ñu naan ñu naan ñu naan ñu naan ñu naan xel ma café ma Sénégal père loo ci xam. ma Sénégal benn loo sooy booy xel dal ndax Sénégal moom dañu am ndam dañuy gagné rek. Oh. waaw borom café Touba gi moom. Oh. dëkk Touba. xam nañ ne match Sénégal moom Sénégal dañuy gagné waaw. boo doon joxe score bi tey looy wax. boo doon joxe score bi Sénégal laa koy jox su ma ko jox benn réew sama réew laa koy jox bëgg sa réew waaw loolu laaj xam ngeen daal dimanche war nañoo mën a gañe dimanche moom day baax na xel yëpp daal furée bi tamit père xel rek furée bi da ciy baax ndax furée bi moo koy neexal waaw kontaan naa ci yow maa ngi nii biir salian ah, gis nga ay café ak lépp fi am gaen kontaan naa ci yéen dégg na ah. damay avancé ma yóbbaale sama ndox nag père maa ngi ñëw fay dégg grand ziar naa la delloo ziar gaen grand match Sénégal Angleterre dimanche waaw dimanche match Sénégal Angleterre gëm suñu bopp rek xam ne kenn mënuñu quoi ku nekk dafa ñëw pour gagner compétition bi après yóbbu xam nga sa nation mooy loolu. jàpp ngeen ni Sénégal mën na gagner dimanche. mais si parce que football la mën na gagner dimanche. waaw nañ teg liñ yaakaar rek waaw. boo joxe score bi yow looy wax. non xaw ma mais am naa yaakaar mën nañ gagner daal peut-être mën nañ dóor 1 ba 2 xam nga. waaw 1 ba 2 waaw. nee na 1 ba 2 ah damay continuer maa ngi nii ci réewu Saly wi di waxtaan ak yi di xool ku xam football ak ku xamul football affaire yooyu quoi. maa ngi leen di ziar salaamaaleykum. grand grand. grand match Sénégal la si ngay dox allo Sénégal. ok match Sénégal. d'accord dimanche dañuy gagné. loolu c'est vague dañuy gagné rek mooy lan. ah dañuy parce que loolu laa gëm. koo teg ni Sénégal day gagné. fu ma ko teg. Angleterre amul lu ñu amul amul joueur lu amul. on a Kalidou Koulibaly voilà on a Abdou Diallo suñu milieu terrain bi on a pas de six ak meilleur gardien aussi tamit Kalidou euh, comment dirais-je Edouard donc dañuy gagné incha allah gagné woon nañu koy def xaw ma leneen mais dañuy gagné. bu ma doon wax score bi war nga may jox score bi lan nga lan nga gis. ah yàlla xam mais yàlla nañ gagné 2-0. 2-0 yàlla nañ gagné 2. nañ gagné 2-0 yàlla nañ gagné 2-0. kontaan naa ci yow.